dañuy fas ne dikk ak yéen ci li xam ne mooy naafile yi saxru ramadan mooy weeru koor gi waaye avant loolu dafa am benn jukki boo xam ne dañ ciy dikk ak yéen ba noppi ci ni ñu war a taxawee koor ak yi ci war xam na ne yàlla ma ngi wax ci téeram bi yaa amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فحدة من أيام أخر جلنا جي أبي حرير xurayra ba عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه جلنج أبي هريرة معنى ينتف صلى الله عليه وسلم نيرا كيبكو تغوتي سر رمضان نكو يالي ديجلي تي ساكوتي تي تيابا أك دفتي لباح تخيوكو واتندوك أولام مين نمتي جفتي بان فخبا نونغا اتشرمتي لباح لب يالي ديجلكو أي دكارم lim jëlee ya, ci bàkkaar lépp kon loolu yëpp dana tax suñu ñu gën a farlu ci sa ramadan mu nekk bis bi tedd weeru weeru tedd doon weer woo xam ne wax promotion la ndax kon li ñu bëgg dikk yéen mooy ay naafile yoo xam ne dañ koy jëlee ci amaratul ayni bu tirib sëñ Cheikh bak yàlla saa borom dolli leer ay naafile yoo xam ne moom da koo bis ba far bis bis bi ci ne mu wax ne guddig nangam ku ci julli nangam wax saari wax njariñ ci jëlee mu nekk kon yoo xam ne jar naa toppatoo lool bismillahi rahmaani rahim daa wax ne guddi gi njëkk bi di nga xam ne moo njëkk comme buñ ne weer wi feeñ na tey jii kon guddi gi nga buñ ci guddi guddi gi ci lan lañ ci julli fukki rakka waaye rakkaa bu ci ne da ngay jiital fatiha bu fatiha di jeexee nga rek ci inna ansalnaahu ak qul yaa ayyuhal ak suuratu ixlaas mi qul huwallahu ahad lu ci ne ñaari yoon lu ci ne ñaari yoon lañ koy julli kon ku def loolu yàlla dana ko xaraamal ci sawara kon yàlla dana araamal aw yaramam ci sawara te bu ñaanee yàlla dana ko faj kon loolu day nekk njëriñ lu foor loo xam ne kon ku ci ne war na ja taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu